que ne j'ai pas d'ennemi en politique mais par contre dama am ay adversaire politique parce que dama ne man Medina kep moo ñor wutuma nombal tank wutuma place parce que dama ne suñu borom seetaanuma parce que buma défé 26 ans en Europe nek fa un cadre supérieur lepp lépp euh, taranga euh, dund dundugu neex euh, bàyyi situation bàyyi avenir bo xamante euh, magnifique euh, voire même féerique lépp pour def ce qu'on appelle ben sacrifice pour ñibi ci Sénégal euh, au nom du patriotisme parce que dama né Europe bari naa yu Ousmane Kanté yi fa nekk tubaab yi soxlawuñu ñu par contre suñu dëkk yi suñuy doom suñuy dëkkuwaay soxla nañu ñu ñibbisi dañoo lañu xawa jang ci suñu tubaab bi. bu ñu ñëwee ci suñu réew yi war ko fi mën a calquer mais danga may gis ne bu ñu ñëwee du ñu jëriñ ci suñu réew parce que tout simplement du ñu déglu tout simplement suñu xam-xam du leen intéressé maanaam ñun dañuy nekk ay adversaire ci ñoom dina leen neex nag Ousmane Kanté taxaw seen kanam bu ko defee ñu ne ah booy bii de man lay àndal mais bu joxe liggéey jotee wala joxe idée wala responsabilité dañuy fexe ba doo ci bokk te loolu bu yàggee

loolu dama koy wax sama bat ca kaw kese maa ci amul une responsabilité étatique man kese donc lépp lu may def dama koy def moyens yi samay fonds propre bopp la ci sama teraanga bopp laa koy jëlee di ko bokk ak ña ma ko war a bokkal ñeneen ñi ci des ku ci nekkul maire directeur général nga ku ci nekkul directeur général ministre nga ku ci nekkul ministre ambassadeur nga ku ci nekkul ambassadeur aussi état bi teg na la avec une nomination dans les autres organisations internationales ba am des possibilités et des vouloir faire Nous n'avons pas tax toujours ils doivent faire leur devoir parce que ci nous taxes lañ leen di nous ci nous alors que nous, nous nga nous parce que nous sommes suñu ñu fa ak aussi suñu yéene au Sénégal salaire lañu am salaire boobu nag ñoo ngi parce que euh, je ne cache pas le fait que euh, euh, je suis très bien payé parce que je suis un cadre boo xamante ne je suis très bien payé parce que je suis payé par rapport au métier que j'exerce j'exerce dans la finance avec plus de 20 ans d'expérience suñu borom ubbil na ma ci teranga Teranga, googu moom laay jël di ko bokk ak doomu Médina yi nga xamante suñu borom def na seen wërsëg ma war ko bokk sama wërsëg ma war ko bokk ak ñoom mënuma ci lenn dama koy bokk ak ñoom di wax aussi que ne ñoom ñuy tudd medina di ko mbubboo am ci ay nomination am ci ay responsabilité bu ñu fàtte ne la ñu yor teranga ga ñu yor waa medina dañ ci bokk Bamba c'est mon grand frère parce que suma mag la euh, aussi euh, c'est mon maire parce que man je suis quelqu'un de très démocrate euh, dama doon xëccoog moom suñu borom def ne moom la ñu fal maire euh, amuma benn relation d'animosité d'animosité ak moom sauf que gis-gis yi ci yenn sujet yi day wuute parce que na may gisee ak moom damuy gisee ci yenn sujet yi bokkul mais sant yàlla parce que euh, virus bu bon bi fi ñëw dafa indi un rapprochement parce que dafa woote ci benn comité central au niveau de la Médina ñu wuy ji parce que Médina moo xewle Medina moo am naxaar ñu jël lépp luy politique teg ko de côté pour jóg ànd ak moom ci liggéeyu mbas mu bon mi fi ne loolu moo tax tey jii mënuñu ko seetaan moom kese mu war a jàkkaarloog mbas mi parce que amul moyen amul xalaat yi amul aussi kàttan gi moom kese war na ci soxla doomu Medina yi yëpp bu ko defee ñu ñëw toog ak moom mën di participer pour que mbas mi fi ne mën a wàññeeku. bu ko defee waa Médina mën dans une position euh, euh, sécuritaire qui sous politique bi par moment une vision différente d'afti ciy am parce que t'as dit, dama j'avais pas du tout compris un maire jeune qui est comme Bamba Fall euh, bu gisee initiative bu rafet boo xamante euh, àdduna magnifier woon na ko doomu ndaka doomu Sénégal magnifier na quoi ba jox ñu ci turu Euh, doomu africain yi magnifié ko ba jox ci turu modèle africain tey jii yaakaaroon naa ne mbootaay bi nga xamante ne doomu Médina yi Ousmane quanti jiitu ko ñi fi ne ak ñi nekk ci diaspora yi au moins waroon nañu am une reconnaissance de la Médina parce que bu ñu amee reconnaissance nationale am reconnaissance internationale tey jii ñi ñuy jox reconnaissance ngaa ñu mag suñuy kilifa lañ mais ëppalewuñ ko parce que initiation des petits déjeuners muy une première au Sénégal voire même en Afrique tey jii waroon am une reconnaissance waroon nañu am raaya pour xamante ne mairie de la Médina waroon na ko au moins euh, à titre honorifique day nekk loo xamante ne ñu ci encouragé mais amna ci yakar dans la mesure où tey euh, tànk yi ma gis mu yëkëti depuis ba fi mbass mi nekké ba léegi euh, wan na ma ne il a compris que né liggéey bi mu wara liggéey biir il faut nous liguer ci ak les autres acteurs politiques de la Médina lolou dama koy rafetlu faire ñaax mu gën ko yaatal diko ñaax mu en personne hamne aduna dañu ce qu'on appelle le management de solution mais nekkuñu ci management de chef man may chef may def man may chef ma xam man suis kilifa man rek ma wara wax chef, na parce que tay pandémie dafa am leneen lu mu indi ci àdduna euh, nul ne parfait ba alxuraan waxoon kenn mëtul virus bi daf ko indi ba tey jii tubaab bi ñu yaakaaroon ne sax moo ñu ci war a mën a gën a génn tey jii moo gën a suux lecture boobu ñoom buñ ko amee ba taxaw jël recul xam ne man la maire Bamba Fall pour ma liggéey il faut ma tendre la main à Ousmane Kanté pour mu ñëw jàpp ci liggéey parce que am na bor boo xamante ni mënee na fa kooku dañ koy rafetlu. cette ouverture noble dama kay saluer di yaakaar ne rek bu mu nek ouverture politique na nek une ouverture citoyenne na nek une ouverture naturelle ba bu fi mbass mi jógee mu nek lo xamantene unicité bu amé ci bir Médina par rapport à tous les leaders de la Médina bu politique wesso bolo parce que encore je ne fais pas de la politique pour une position suñu borom may une position sociale je fais de la politique pour servir la population de la Médina parce que suñu borom moo nato, te service au sein de la population Médina dafa que loo xamante ni gisuma ci àdduna lu tax ma ma koy baax du ko ba tey du ma ko ba lu ma ñor lu ne Médina la être au service de la population de la Médina appuyer la population de la Médina. Ça me gêne aucunement pour que Bamba Fall soit le, le maire de la Médina, à condition que gestion n'est une gestion utile pour la population de la Médina. À condition que mon fi pour la population médina. Ça me gêne nullement que je Seydou Gueye ou que Mouy Charbanek, maire de la Médina, mais à condition que leur temps les permette aussi d'être au service de la Médina. Si je défoulé, je suis la première personne à les combattre, comme nous sommes la première personne à répondre à leur appel bu fekkee ne appel bi comme nous ko c'est pour la Médina kenn du ma fi jiit may njëkk comme ni ma ko defee ci c'est un temps parce que CATB dañ ko mettre en place pour accompagner le président euh, Macky Sall au niveau de la Médina parce que dañ waxoon cellule d'appui pour le triomphe du Benno mais le Benno a triomphé jeex c'est-à-dire xam nga man dama bëgg toujours euh, que euh, il faut rendre à César ce qui appartient à César euh, te euh, ci liggéey liggéey femmes am un début dafay am aussi euh, finalité on a atteint notre objectif avec la CATB c'était pour une élection présidentielle pour nous dire au niveau de la Médina dooleel benn bokk yaakaar pour jox ndam le président Maxal. Sall vous mu lañ ci war def maintenant à la CATB à un moment donné aussi de savoir fan lañ jëm et c'est une question que j'ai posée nous avons xamante au de la CATB fan la ñu jëm maintenant bu fekkee ne xamuñu fu jëm mais nit man sont pas topp ku que nous jëm et puis a fait aussi euh, l'idée l'idée l'idée l'idée de Dak Medina. parce que euh, ce qu'il faut dire euh, que c'est venu au temps voulu parce que moment où nga xamante dañu un relais entre la population médinoise et les autorités qui sont au niveau de la Médine, tant gouvernementale, tant étatique, autant même au niveau communautaire, parce que nous avons une population qui euh, di am les vraies informations, les les informations qui sont euh, à chaud et informations qui sont utiles ñoo utile ci ñom. un vide. entre les gens ci dëkk bi liy xew ci biir Médina ak naka la ko population médinois di déggee ak naka la ko population Médina aussi euh, di di di di di di nangoo parce que le relais n'existait pas donc tey ay doomu Médina de métier de communication euh, de métier de l'art de métier du visuel bu ñu booloo jël seen xam-xam jël seen doole jël seen mën-mën ne dañuy mettre en place une organisation commune pour apporter une valeur ajoutée au niveau de la Médina au niveau de Dakar et au niveau du Sénégal Je ce que je dis c'est que euh, Dak Médina a euh, ce que j'appelle euh, du travail sur la planche parce que Taïdi, Dom Médina a di xar parce que des gens ko c'est un site qui xamantene euh amna njëriñ ci ci Médina dañuy ñaan suñu borom mu gën leen euh, en première parce que euh, je suis dedans parce que mënu Médina ñor di créer c'est une valeur ajoutée pour les Médinois ñu né duñu ci japp wala ñu né tay ji dañu kay dañu sétane tay ji euh dama allons beaucoup plus loin que la Médina allons beaucoup plus loin que Dakar, soyons même euh, une organisation panafricaine, soyons même une organisation internationale. Ba Dak Medina il def des micro-trottoirs dans les rues de Barbès Dak Medina il def des micro-trottoirs dans les rues de Harlem aux États-Unis bu de Medina Yifanek, Il y aussi di am par rapport à ce qui se passe voilà ce que nous attendons et voilà là où nous voulons accompagner Dag Medina mu que quelque chose qui va aller au-delà de du virtuel Hein, la toile, mais qui soit quelque chose de concret, parce que je rêve d'une très grande agence sur l'avenue Blaise euh, où cela est mentionné Dag Medina, nous savons que c'est l'information qui émane de la Medina pour le monde, mais pas seulement qui émane de la Medina pour la Medina. Merci.